bi nga xam ne yaa gagné Euh, daal euh, décorer yaag sa doom ak sa njaboot noo leen mënti toll rek kenn ku nekk ko jox coupon bazin loolu nag wari moom la def noo ko mën a amee jëndal li nga xam ne moom mooy crédit war a nga fay facture ndox ak courant war a Sonatel loolu ci mënta am di fay facture rek jàppal na tamit wari nee la bu fekkee ne da envoyé war jot mën ngaa bokk ci ñuy gagné xaru tabaski waaye tamit décorer bu dee am nga jëkkër sa jëkkër nañ ko décorer yow

nañu jàpp ne Wari moom moo indi loolu pour doole tey nag ñuy am euh, di tàmbale loo xam ne wax dëgg yàlla nag neexuñu waaye fow ñu wax ko suñu papa yi nga xam ne mooy alaaji Cerno Sama Sam Warabi benn soxnaam moo wàññeeku ñu koy jaale bu baax baax a baax foofu nga xam ne moom mooy warasu gi di ko ñaanal nag soxnaam soosu nga xam ne nag dafa dëddu yàlla ko yàlla xare àjjana te alaaji Cerno Sama Sama euh, Sama Sam yàgg nag euh, di ko ñaanal pour mu jëm li nga xam ne nag moom mooy ca àjjana ca incha allah ñu ngi koy ñaanal tamit di ko masawu képp ko xam ne taalibe Cerno Sama Sam Warabi nga ci soxnaam soosu xam ne dafa génn àdduna ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana waaye di ñaanal tamit ko xam ne tamit da nga dëddu àdduna yàlla yóbbu la ca àjjana yi a kawe am nañu yaakaar ne wax dëgg yàlla nag yàlla dana def loolu ndax yàlla suñu borom ku baax la te am na yërmande te kenn xamul àdduna te egguñu fale ca xam ne mooy alaxira ndax yàlla mooy borom xol bu rafet bi nga xam ne wax dëgg yàlla moom suñu bopp mu bopp moo ñu sàkk ba pare te xam naa ne lim ñu jublu rek mooy lu baax kon ñuy ñaan tamit képp koo xam ne da génn àdduna yàlla xare la àjjana ci gën a kawe mbokk nag bu ñu delloo ca Fuuta euh, jaare ki nga xam ne mooy suñu papa ñu ngi ziar bu baax Sëriñ Basiru Baara Mbàkke ci HLM Géejawaay ñu koy ziar bu baax nag taalib bi mi Gamou nañ ko ak sama papa alaaji Cerno Hamdu Aw xalif bu Thelaaw di ko nuyu di nuyu tamit bu baax Serigne Abo Mbacke ibnu Serigne Fallou Mbacke yal euh, na ko yàlla defal jàmm moom Serigne Sang Ndiaye di taalibe Serigne Saliou ma koy ziar tamit ak ziar njabootam ak képp koo xam ne tamit taalibeem nga mbokk yi ni def moom mooy dañuy seeti suñu papa Mansour Mbaye lu tax ñu seeti Mansour Mbaye dégg ngeen sànq Youssou Ndour euh, la mu waxante ba Kouthia ba léegi joxagul information bi information boobu nag moo tax tey ñu woo ki nga xam ne moom mooy président des communicateurs traditionnels mooy suñu papa Mansour Mbaye moom mi nga xam ne euh, alaaji Abou Bilal doomam la te xaritam la moom la alaaji Abou Bilal daa dee woolu na ko papa daal mun naa mun ko dafa am ngërëm boo xam ne dañ ko war a ki nga xam ne mooy Youssou lu ko waral nag mooy dañuy dem seeti Mansour Mbaye mi nga xam ne dañ ko yebal ci ki nga xam ne moom mooy patron super étoile di patron groupe Futurs Médias mu war a wax loo xam ne information bu am solo jëme ci li nga xam ne nag moom mooy ca euh, euh, mbiru Kouthia lan la mbir mi mbokk ñu seet suñu papa Mansour Mbaye nañu koy teeroo nag xam ngeen ne suñu papa Mansour Mbaye nit la koo xam ne nit ku yàlla baaxal la nit koo xam ne wax dëgg yàlla delloo ko njukkal du doy ndax chaque jour ñu ngi koy ñaanal fan gudd ak wér gu ndax c'est le de la culture sénégalaise ndax fekk na démb bu ñu ne souvenir ku ko yee ci souvenir dina la wax li nga xam ne moom Sénégal démb ak tey ak li mu jot a fekke ñu daal dee seet suñu papa Mansour Mbaye ndeysaan mënumaa bañ ay sabar yu ñuy ci ambiance ndax bu ne communicateur traditionnel tëggkat ba ca la bokk waykat ba ca bokk waaye ka nga xam ne moo yore histoire Sénégal te gëstu ko xam ko kooku communicateur traditionnel la xanaa rek kontaan ndax Abu Bilal bu ma wooloo ne ma papa ca dëgg dëgg dëgg dëgg dama bëgg nga gërëmal ma ki nga xam ne mooy président groupe Futurs Médias di Youssou Ndour lam ma dee dama na ko kuñ ko wax war ngaa mën a gërëm ñu ne lu xew ñu ne groupe Futurs Médias am na fukki at ak ñaar di tàmbali ci Sport FM ñu ne dee na waay mu def ko RFM ñu ne dénn waay mu indi observateur ñu ne dénn waay mu indi TFM ñu ne dénn waay mu indi site ba ñu ne dénn waay mu ne nag bouquet yaa ngay ñëw waaye nag anniversaire ba mooy fu nit ki toll bés bu dellu se nga xool la nga bàyyi woon sa ginnaaw ak la ne ca kanam ndax yokkute la <coughs> ndeysaan sa dëgg-dëgg dëgg kon loolu yaram daw na Abu nag nee na le président Youssou Ndour président fekkee ma ci boole dafa yëkkati téléphone am woo ko ne ko bës bii ñu dëppal di la 27 sa bës la yaa moom première partie ba balaa Youssou Ndour di yëg ci kaw seen nee na ko Abou Bilal may nañ la une heure de temps yoo xam ne danga da nga jàkkaarloog askanu Sénégal ak ña nga xam ñooy nekk ca Méridien président. Kouthia Show ngay jël yóbbu ko ca Méridien président bégal personnalité yi nga xam ne ñoo fay teew Youssou Ndour nee na sargal Kouthia bés boobu la koy def incha allah samedi mu ne lu tax mu ne bu génnee ci réew mi ak ci bitim réew ak fu mu jaar nit ñaa naan ko Abou Bilal ngay liggéey liggéey bu rafet kon nag équipe ba na waaye Youssou nee na Abou Bilal mu ne ko naam mu ne ko bi fi nekkee ak ba ngay yenu palanka bay di daw ñu ne pancarte ba yow fu Abu Bilal jëm ñu ne ma nga jëm ca Paris wane télé ba boobu jëlee na ko Afrique yóbbu ko ca diaspora mu ne ko ak mu ne ba mu mettee ma ngay toog ba mu neexee ma ngay toog waaye mbégte bi nga xam ne moom la Abu Bilal di bégal population Sénégal ak diaspora bi moo tax Youssou Ndour delloo ko njukkal du lu ndaw ku woote ñu ne Groupe Futurs Médias lu xew ñu ne anniversaire am ku invité mu ne Abu Bilal ndax danaan yàgg toog ca public mu ne déedéet <laughs> abu bilal du toog ci public ñu koy xool danaan yàgg taxaw ca seen ba bigal képp ko xam ne da nga a ñëw ndax jour anniversaire tur groupe Futurs Médias fukki at ak ñaar dama ne gën ngaa gàtt abou bilal def na ci juróom-ñetti at kon du lu ndaw mbokk yi nag abou bilal nee na bég na ndax le président du groupe fekkee ma ci boole dafa na ko première partie bokkul ak jaar pause def dix minutes nee na ko bu na ñëpp toogee ba mu yemb ba ñëpp toog di xaar yu suma jigéen abu bilaalee yor micro ba bëggal nit ñi waxtu jaar ci ñi nga xam ne mooy jaar-jaaru Sénégal les hommes de la culture yi nga xam ne ñoo marqué l'histoire du Sénégal les politiciens yi nga xam ne ñoo marqué l'histoire du Sénégal revivre la population sénégalaise li nga xam ne moom mooy jàmm ak dialogue islamo-chrétien bi nga xam ne foo déggul Abou Bilal yaa ngi koy dégg muy tudd kilifa diine aada cosaan ak ñi nga xam ne ñu nekk ñoom diine yooyu yëpp pour dajale xol ñëpp bég te moom ci bégte lay doon kon Youssou di am bégte nee na ma nga am contentement nag Abu Bilal nag nee na ma Youssou sas na ko ndax bu soobee yàlla incha allah keroog méridien dana rëy looy def mu ne ah <laughs> xanaa rek bëgg Abu Bilal loo nar mu ne keroog xanaa tukkil méridien ñu tuddee ko hôtel Abu Bilal ndax méridien ba ci boppam dana dem man nag dama di kilifa di di mag du ma dox ci caaxaan ak loo xam ne mbir la boo xam ne dañ naan maa su may war ñu koon dégg ci lii waaye nag damay woo sama doom moom alaaji Abu Bilal mu daal di nag bëgg wax ci ay kàddu yu gàtt nan la nar def ca bés boobu nga xam ne mooy samedi le 27 ca ca ca méridien président mu nekk en direct ak Télé Futurs Médias nar ko wane looy wane Abu Bilal ñëwal. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na def. ñëw fii. ma ne. on accélère on accélère on accélère sa accélère. on accélère ba méridien ba méridien ba méridien